voilà mbokk yi ñu nekkoon fii ci stade Alassane jigo euh, taxaw ki ak ki nga xamante ni mooy El Hadj Adama Mbaye ak euh, ki nga xamante ni euh, mooy Ibrahima Ba nekk supporter AS Pikine ak joueur en même temps voilà ñu jox ko kàddu bi rek mu présenté wu. asalaamaaleykum waa Like TV ñoo leen di bëggee di leen sant bu wér man Ibrahima maa ngi tudd Ibrahima Ba défenseur AS Pikine bokk ak sama idole équipe Adama loo xam ne sama reeb la musa doon. di wax ne capitaine capitaine ngi quoi ku bëgg a gis capitaine ku ku bëgg a xam la mooy capitaine kii mooy capitaine parce que dañuy wax ñun euh, dañ doon sawar di bokk ak moom équipe quoi dañ doon sawar di bokk moom équipe tey la ko suñu te ren la ko suñu borom doog a dogal mais ku gis aada ni muy def si biir terrain ku gis aada ni muy fubalee si biir terrain xam ni ko am jom la ku am fulla xam nga tey modèle la quoi si ñun. ñun ndaw yi tey ñun suñu xoolee aada si biir terrain dañuy gën a def suñu doon def benn dañuy def fukk ndax moom parce que daf ñuy pousser entrement daf ñuy pousser match daf ñuy pousser ba lépp loo xam ni lépp lu ñuy gañaloo rek la aada di gis moo tax saa su ne soo xoolee match yëpp moo ñu siy génne te mënoon naa wax aada âge bu mu tool nii xam nga mënoon na ko mënoon naa mënoon naa teel a bàyyi ne booy dem leen mais moom ñuy gunge wa tey moom ñuy gunge wa tey moo ñuy may fit te ku bokk aada terrain waxuma la fitu gaynde nga yor quoi parce que moom gaynde la di wax aada loo yaa xam loo bëgg sa àdduna yàlla na ko suñu borom defal di la wax yàlla na yàlla bàyyi suñu kanam ba nga fekkee say njariñu njaboot fekkee suñu njariñ ñun ñëpp parce que exemple nga mhm. ñun boog man boog si man si yow laay roy donte ñoo bokk équipe waaye man su ma la gisee si biir terrain damay gën a sawar quoi damay gën a sawar a jouer parce que parce que parce que yow yaa ko def si ñun quoi di la wax yaa xam loo bëgg sa xol yàlla na ko suñu borom defal voilà mu nekkoon ay témoignages yoo xamante ni nii euh, ki nga xam ni mooy Ibrahima Ba nekk joueur de l'AS Pikine nekk en même temps euh, fans de euh, de Adama mbay moom bokkoon na ci ay rêve am mooy jouendo ak Adama mbay Adama Mbaye je pense que def na ay preuve am fii ñu bari xam nañ ko voilà mu nekkoon joueur bi nga xamante ni nekkoon na nekk na international en même temps dem jouer ji woon Gabon defaat retour am fii ci équipe bi jël fii championnat du Sénégal jël la Ligue 1 jël fii meilleur buteur Euh, ñu bàyyi ko mu wax euh, ses impressions par rapport ak loolu. waaw non loolu moom loolu moom dama ci kontaan quoi ndax xam nga xam nga nit déggoo ñu ni kenn ku la bëgg rek jar na yow nga lu quoi ba dee ndax kenn kooku rek quoi xam nga lii nii dafa foor kii sama rakk la ñëw ci équipe bi la ñëw ren la fi ñëw mais sincèrement parler amul benn problème waaw. parce que gis na ni gis na cohésion bi am AS Pikine xam nga gis na booloo bi am AS Pikine te moom dafa ñëw rek intégré. dafa ñëw rek dugg si fekk si fekk si fi loolu kon xam nga loolu man it ma koy ma leen di gën a encouragé parce que ñoom tey tey bu ñuy dem bay wax Adama Mbaye ren boog ren mais ñoom ñoo tax parce que ñoom laa nekkal ci biir terrain bi ñoom ñoo ma liggéey bi ñu nekk ay xale yoo xam ni xale yu yaru yu yaru lu ma leen wax def leen ko dañ koy def bu ma nee leen bàyyi leen ñu bàyyi leen man man dama part personnel bu ma sañoon sax championnat bi du jeex ndax xam nga la moo tax nekkin bi ma nekk ak booy ni mu rafetee bëgguma mu jeex loolu ma ciy kontaan trop parce que nekk ak naag bu nekk jour bu ne nekk ak moom mais jour yu ren AS Pikine ni non mention spéciale dëgëruñu bopp loo loo leen sant loolu la ñuy def man looloo tax déggoo man la bëgguma championnat bi jeex parce que bëgguma tas ak booy yi bëgguma lii mu tas dama bëgg mu continuer mu nekk lu sax mhm. parce que bu saxee rek man gis naa si njariñ mhm. waaw may sant ñëpp di gërëm ñëpp ok merci. waaw Ada euh, ba tey euh, nu ma la bàyyi parce que ku ne xam na ni championnat bi actuellement ñi ngi ci euh, mi championnat bi maanaam mi ngi waaj a jeex ngeen nekk leader du championnat naka ngeen di préparer journée yi nga xamante ni néew na te moo ci des. waaw loolu naa ci sawar a tontu fi mu toll nii match yëpp la ñuy pare. waaw AS Pikine benn masam du yomb AS Pikine képp ku muy am rek match bi day metti parce que da naan noo Pikine la quoi. moo tax match yi yëpp la ñuy préparé du ñu du ñu du ñu du ñu maye tarafatal ay ni waaw match yi yëpp la ñuy préparé comme ni ñu ko doon préparé sérieux concentré wu dem nu xool lan lañu yàlla di jox jàmm bi sabab loolu rek la am yàlla mooy maye chaque jour heure bu ñu xëyee ñu ngi ñaan yàlla yàlla dañu may ndam waaw loolu lañ bëgg nag mu continuer te incha allah na baax incha allah. Aada ñu gis journée ba la passé euh, Amadou euh, ñu gis euh, AS Pikine Euh, daal di perdre match boobu euh, devant Renaissance voilà ñu gis que ni euh, équipe bi actuellement dafa bari na ay défenseurs yi nga xamante ni blessé nañ pour ne pas ñu mel ni Pocho ñu mel ni aussi Mame Thierno fan la seen état de santé toll ba xam mën nañ ko xam. waaw non allah seen état de santé ñu ngi ci waaw Mame Thierno commencé na entraîner Pocho xëy na dina commencé mi ngi dem ci docteur bi nice quoi. waaw seen état de santé moom alhamdulilah dinañ ñëwaat fekk si équipe bi dinañ man gëm naa loolu dinañ ñëwaat fekk si groupe bi non match bi passé déggoo man la li ñu naan bisu ndam du bisu ndam waaw bisu ndam moom bisu defet la xëy na jour boobu yàlla moo waxoon du ñu gañe ndax boo xoolee occasion yooyu ma tax man yooyu xam nga ne mosuma ko rate waaw ay ñëw ba ci digg camp yi di rate bal xam nga ne loolu doy na waar waaw ma xam ni bisu ndam du bisu ndam mhm. waaw mais loolu lépp day defar xam nga am na defet yoo xam ni day defar defet boobu dafa defar dafa am lu mu defar waaw loolu dafa baax moo tax dañuy gën a jàppaat gën a góorgóorlu xam nga rek pour jéem a atteindre suñu objectif quoi sincèrement parler loolu lañu bëgg quoi incha euh, allah ngeen jëm euh, pour terminer ngeen jëm Tiwaawoon euh, samedi bu nekk match bu nar a metti lan ngay wax supporters yi. waaw mooy li ma doon wax rek li ci des bariwul six match la bu ñu demee foofu dafa war a mel ni Pikine lañ nekk mooy lan moo ñu tourné gis supporters yëpp. nekk suñu ginnaaw pousser équipe bi ñu dem ci kanam man loolu rek laay wax. merci Ada ok merci. merci beaucoup.